ملكني ما لم يقيه عني وقال لي بقاؤه بالمن كرامتي كتاب ومن كفاني به إلى الجنان مصطفاني ما ممات أنها نفوسا وللسوايا ساغوا تنفيذا الفوت لم تنهني مقدمات الموت وألفت بالبقاء صوتي موت الذي لك بدوني بلد بموت نفسي كان حالي شلل كرسي الموت بقاء الله ثاني الباطل فما تسرمدا وببقائي يسر أحمدا أفاني الباطل فما تسرمدا وببقائي يسر أحمدا أفاني ولم يضرني ولا قتل كم بوتو أقرأ waaye ku ñu ma tudde ma boole ko ndeyam ak baayam tabal àjjana lu leer la ci ne lii may waxe ci gël tàppe lañ ma ko waxe ku ñu wax coon sekk moo ma ko wax coon sekk moom moom lañ tuddee coon sekk mii way ma ngi ci gël tàppe ba ma fay dem 8300 la am dane damaa ñëw di siyaare sëñ mu Moussa ñëw daaru Xudus الأمير لا شك ñoo daje tey jii fi béyti di jébbale liggéey bi nga xamante ni waxtu wi daaw ba waxtu wi ren di am at ñu koy def saa yu nekk ñu ñëwaat ginnaaw bi ñu noppee jébbal liggéey bi suñu sang bu tedd bi ci turu sëriñ Moustapha Saliou Mbacké di président d'honneur nekk ca kaw ak sëriñ Moustapha Mbacké màddina président actif ak Moustapha yépp yi ko àndal kon ni ñuy def mooy dañuy ubbi jataay bi di ko jox kàddu gu njëkk gi sëriñ Moustapha Mbacke Diyooli ci turu sëriñ Moustapha Mbacke Madina mu ubbi jataay bi dalal gan yi ñu tàmbali liggéey bi bismillaahi rahmaani rahiim sax Moustapha bi te maa jiitu te maa ci war a jiitu kon loolu yi mom xam na ko bu baax te mi ngi koy defal waxtu wu nek kon loolu mbacke faaw ñu sédel lako nax yow lañ ko defal nax yaa fi Cheikh mustafa ak it mbolem rakam yépp nuy ko seigne mustafa waxe nak seigne ku mel seigne mustafa Mbacke Madina yit moom it faw ñu taxaw ci mom ndax jambar la jo xamanteni ni ne kër gi nek na fek sëriñ Cheikh mustafa yu bari waye lim nangu ci daayir bi wax deug yàlla am keneen ku dun mom nangu woo ko kon loolu na faaw ñu sédé ko di la ko di la ko baax nga ñaanal ko mu yàgg fi te wér te li ñu sakku di ngërëmul maamam Cheikh Moustapha mu am ko waaye nag sëñ Moustapha Dioli mu doon wax léegi it wax dëgg yàlla Mbacke jàmbaar la ci daayira bi lool te waxtu wu ci nekk waxuma la ndaje yi ñuy def di ay jëbbale ak ay assemblée générale waaye daayira yi nga xam ne dañuy def talaata bu jot sax da ci ñëw di ci teew si te it wax dëgg yàlla loolu yi muy def am na ñeneen ñu ko waroon def te defuñu ko kon bu ko defé mom faaw ñu seddeel lako ne mi ngi sonn bu baax baax ci daayira bi bu baax baax waxtu wu ne mi ngi ñëw di wuyus ci daayira bi te kilifa la te amna ay yitte mënon na ca nek kon loolu it mbacké ñi ngi lako ko seddeel baax baax mi di la seddeel it nak mbolem section yi nak ñom ñëpp ñëw nañu euh Touba gi nga xamante bi ne nii Serigne Moustapha Mbacké Madina moko jité nga xam mo jiite fédération bi it nak waye mo jiite section Touba ñaaré mit Serigne Moustapha Fall jógee na fa ànd ak turandoo Cheikh Moustapha yu tak tay fi la yendu ci kër gi bàyyi laa it sëriñ Moustapha Sëy fa la jóge moom it ànd ak turandooy Cheikh Moussa yu takk ñëw ak jébbale seen i hadiya tundoo di it sëriñ Moustapha Guèye sëriñ Moustapha Ndiaye ñoom it di jàmbaar lool ci liggéey bi eh, wane ci pësteef bu baax a baax ñu ngi la koy seddal nga xam ne ay jàmbaar lañ bu baax a baax ci liggéey bi ñoom it ñëw nañ yendu ci kër gi indaale seen i hadiya tayif it eh, di dëkkub Cheikh Moustapha bu mag ba bii Serigne Moustapha mbakk imam ñëw na mu ngi nii toog ànd ak mboolem turandoo Cheikh Moustapha ya fa nekk yépp Dakar it Serigne Mous Serigne Moustapha Guèye ak Serigne Moustapha ak Moustapha Ndiaye ak turandoo Cheikh Moustapha ya fa nekk yépp ànd na noonu ñëw teew fi kon loolu yi daal mel ni moo tënk fédération bi ngir euh, section day dëkk yu mag yooyu yépp fenn fu ci nekk fexe nañ ba ab daayira am fa na ñu ko digale woon nañu na ngeen fexe ba daayira bi yaatu ku ca képp koo xamante ni tudde la sëñ Modou Moustapha fu mu mën a nekk kon mel na kenn ci jëwriñ yaay ñëw di Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Abdou Khadir ñu may ko mu egsi kon mu melne loolu yëpp nak Mbacké sa liggéey wajur wala rek ak it sa jotal ak sa fonku lila fi lila fi lila fi teg ta bàyyi la fi di moy liggéel Cheikh Mouhamadul Moustapha Thank you. والداه الأكبر بعد الأتاني منه خير السبل إلى جواي كل ما حداني سيد أحمد المختار مبكي mbooleem turandooy Cheikh Moustapha yépp ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñi teewoo ci jotaay bii ak ñi amoon yéene teew ñoom ñépp ñoo maase àndandoo boole seen kàddu def ko mu doon genn kàddu ñu jox ma ko ne ma naa leen ko jottaleen kon kàddu yi may wax maa ngi koy wax ci turu Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Saliou di koy wax ci turu Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul di koy wax di koy wax ci turu Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Abdou Khadir mii koy wax ci turu Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne borom dër bi di ko wax ci tëri ci turu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mourtala sëriñ Moustapha bu Ndar di ko wax ci turu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Massamba waaye kàddu yi ma yëkkati maa ngi koy wax ci turu sëriñ Moustapha Mbacke Absa bu Daaru Moxti di ko wax ci turu sëriñ Moustapha Mbacke Hanfiya di ko wax tamit ci turu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina mi nga xam ne moom la mbooloo mi tànn kilifa yi tànn ko teg ko mu mu jiite dayri bi da ci rafet Euh, kon su ma leen tuddee ñooñu tudd naa mboolem sëti Serigne Touba yi nga xam ne euh, seen waajur yu sell ya ñoo leen tuddee Cheikh Mouhamadou Moustapha bu dee ci wàllum Cheikh si su ma tuddee Serigne Moustapha Ndiaye mii tudd Serigne Moustapha Gaye euh, tudd Serigne Moustapha Diané dana yóbbaale mboolem Cheikh Serigne Touba yi nga xam ne seen waajur ñoo leen tuddee Serigne Mour Moustapha bu dee ci wàllum taalibe yi su ma tuddee Serigne Moustapha ndogal tudd Serigne Moustapha Ndoye bokk ci membre daayira bi ñoo ñooñu dañuy yóbbaale mboolem taalibe bi Serigne Touba yépp ñi nga xam ne dañu leen tuddee Serigne Modou Moustapha sëriñ bi mboolem turandooy Cheikh Moustapha yi ñoo ngi lay nuyu nuyoo ba gën a rafet nuyoo ba gën a sell nuyoo ba gën a teey nuyoo ba gën a matale te modi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh serigne bi ñu ngi lay siaré di lan lokel ci bisbu tedd bu maggi bi di jël ay kàddu ciant ak kàddu ñaan di ñaan suñu borom tabarak wa taala ci jotay bu tedd bu barkel bi mu yok sofan fan dolli la ak wér ba mbollem nal yi nga xamne nal naal ko sa waajuru cheikh mahamadul moustapha nal ko samaam ji serigne touba nga eggal ko defee ko nang ko beugé te lepp nu and ko ak yow serigne ahmadul Makhtar, ñu ngi sakku ci jotay bu tedd bu barkel bi nga ñaanal sa sa xarit sa sirin sa mag sa lepp cheikh sidul makhtar xam xam nañu sax na yang koy ñaanal waye ñu ngi ñaan nga fasal ko ci jotay bi ñu ngi ñaan suñu borom yokku fanam te dolli ko ak wér ba mboolem naal yi nga xam ne naal la ko Serigne Touba mu eggale ko te naalaat yeneen naal te lépp nu ànd ko ak moom. Serigne Ahmadul Mokhtar ñu ngi lay seeral ne ñu ngi sant suñu borom tabaaraka wa taala bu baax ci lii mu ngi defal tam jommuñu tam jommuñu mooy tuddee gi mu tuddee Serigne Modou Moustapha ndax mboolem turandoo Cheikh Moustapha yépp kenn ku ci nekk yaa ngi yëg li la Cheikh Moustapha di defal. kon ñu ngi lay seere na sant nañu bu baax sant waajur itam bu baax a baax sëñ Ahmadu mboolem turandoo Cheikh Moustapha yi siyaare bii siyaareb delloo njukkal sëriñ Modou Moustapha la waaye tamit si siyaare feddi lu kóllëre gu suñ borom doxalee ci suñ digganteeg Cheikh Moustapha ñu ngi feddi li ci yow ndax mët nga sëkk sëriñ Modou Moustapha te leer nañu ne cofeet gi Cheikh Moustapha ci am ci ay turandoom cofeel googu moom nga am ci turandoo Cheikh Moustapha yi ndax sa bëgg seex Moustapha ñëpp xam nañu kon nag ñu ngi taxawlu euh, di di di di sant daal di xam ne kàddu yi nañ ma ko waxee na ne naa ko wax lott naa ci lool ci teew sama kanam kilifa di yëkkati ay kàddu waaye ñoom nañ ko waxee woon ne naa ko moom waxee ma ko noonu nii kon nag maa ngi jégalu ci ci kàddu yi bu baax di xam ne daal mboolem turandoo sant nañ bu baax ci li nga xam na suñu borom defal nañu ko. muy muy tuddee gi ñu tuddee sëñ mënu sax ndax sëñ loolu ak ak sëñ borom dañu cee badil ak khas la kon ñu ngi sant bu baax di yamal fofu kaddu yi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh siar siar sëriñ cheikh ahmadou mbacke mi tok nek ci jotaay cheikh mouhamadul mustafa diko siar bu baakha baakha baakha baakh di di siyaare ñi nga xam ñom lañ bokkal turando tedd wu mu Cheikh mustafa ñi ngi leen di siyaare yéen ñëpp te di leen soñ ci liggéeyal seigne Touba bi nga xam ne ci ngeen ne di ko ci buntu Cheikh modou mustafa ngeen xam rek euh, li rek les am ci yoon wi yoon wi mom day lo xam ne Touba daf ci leeral bopam xamna ne lim yor mayewut day jaay ku jënd nag mu dëgg ci jënd ga nga jënd ba defal la lu kawe sa njort waaye ku seetaan ñu daal lay raw kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax ndax la ci it ab tegtal mooy bu fekkoon kenn war na ko bañ a liggéeyal ñoom ñii ñoom lay doon mi suñu Modou Moustapha ak suñu Fallou ñi nga xam ne fekk nañ ko te da leen a jiitaloon di leen liggéeyloo ni muy liggéeyloo taalib yi xamal ne leen li li fi ne li ciy maye mooy lii ñoom it bis ba mu leen ko waxee ca jolof ñu ne kon du ñàkk ndax ginnaaw xas nga ñu wax li ñuy maye danañ am ni ñëpp kon nag nañ roy ci ñoom bu baax kon nañ roy ci ñoom te góor góorlu dafa fas yéene xam ne sëñ Tuubaa lim am day yokk waaye du wàññi ko ni ko sëñam sëtu jaxate daa waxee rek wutiin wi rek moo soppi ko waaye ku na gaa yi doon wute ba tey mu defal la la mën a defal gaa yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala. waaw jërëjëf Mbacke mel na ne kaddu yi mënut woon a ñàkk kon ñu maase àndandoo diglu sëriñ Ahmadul Mokhtar Mbacke ñu kaddu yi muy dégg sëñ Mbaye ba kenn du séenati jëmmam nañ ñu saye ci yow sëriñ bi ngir yàlla di saye ndox ba kenn du séenati jëmmam nañ ñu ci yow nan fàtte baay ak i ndey te fàtte seeni barab te fàtte suñ jëmm yi ngir jeex gu metti ci yow sëriñ bi ngir yàlla nii suukar di saye ci ndox ba kenn du séenati jëmmam nañ ñu saye ci yow nañ fàtte baay ak i ndey te fàtte seeni barab te fàtte suñ jëmm yii ngir jeex gu metti ci yow sëriñ bi tey li nu fi dagaan si mooy jariñu mbàkke yaa yoon yi fay kër gi ñëpp yi tàbbi xëy jariñu suñ jëf yi nu mën a mel suñ yéene mooy bëgg a baax géej póotit ak ndox mu bon du teeku duy jariñu lii lépp ak cant la gunti ba biir sunu xol ku yor tawat nëbbu ko docteur doo jariñu suñ ragg yeeg wopp yeeg mébét yaanu ci doy defal nu lool ku nu gis teeg ëllëg jariñu ibbil tijjil mbàkke baddil ubbil àllil afalal bunti jëriñ yépp bii rek biti nuy jariñu yàlla na yàlla guddal saw fan tamay la nga wér te lépp ànd ak ngërëm ak barke ak jariñu yaram wi na wér mbàkke safan wi dew daj nga yeexa dem ba mu ñëw nga tawee ko taxaw